al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak di kéyelu lislam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk daal gi maa ngi nuyu tey ziar di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabaar wax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nañu ko yàlla boole di ndokkeel mbokk yépp nag ci bu mag bii nga xam ne ci lañu bari ko ñaan suñu borom liñ ci def ci lu baax lépp yàlla ko yàlla nangu te gërëm ko yàlla na ci dolli moolaana cheikh ahmadul xadim ay maqaama ak i daraja te sàmmoo ci suñu kilifa yëpp rawatina cheikh mouhamadul muntaqa ñu ngi ziyaare mbokk yëpp di leen balu aq te di leen aq mbokk mi laaj euh, ku doon jullit nee na kabbar kabbaru armal bay wàcc ay loxoom nag posanteg ne nag ak jigéen di romb nee na loxo ba dal jigéen di waaye nag yëgu ci bànneex te jublu ko woon nga laaj ndax loolu dana yàq am jàpp mu diggante góor ak jigéen li tax jàpp mu yàqu mooy ñu am ca bànneex wala ñu jublu ko waaye bu fekkee ne laalante gi jubluwuñ ko woon bànneex it amu ca loolu du yàq dara ci julli wallahu taala alam mbokk mi laaj jigéen juy gis baax bu baaxam jeexee te dara dugub te taggim ci teg ñetti fan mu ne ñetti fan yooyu ndax alxuraan wax wala sunna wala wax boroom xam-xam yi la waaw ñetti fan yooyu day boroom xam-xam yi ñoo ko xiyaase ci wax yonent bi alayhi salaam bi mu waxoon ci yeneen mbir yoo xam ne da caa wax ne dañ cay neggandiku ñetti fan ci foofu lañ ko xiyaase kon mën nañoo wax ne ci sunna la ndax yi ñu balluloo attey lislaam yi xiyaas ci la bokk te ci ko teg wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ne bépp murit bu aju ci moom dana texe te it lor yëpp danañ ko ko soril muy laaj dëgg-dëgg ci moom mooy lam xëy na mbokk mi bayit bi wax ne kullu muridin bi yaluudu yasaadu wa innahu min al ada mubaadu sëriñ bi wax ne bépp murit boo xam ne dana wéeru ci man daa texe te ku ñuy soril lori lay doon loolu sëriñ bi ko wax léegi nag aju ci sëriñ bi wala wéeru ci sëriñ bi mooy lan sëriñ bi am murit bu wéeru ci moom la wax waxut bépp nit waaye bépp murit la wax murit dafa am lu muy tekki te sëriñ bi jàngale na ko it yenn barab kan mooy am murit murit boobu nag bu wéeroo ci sëriñ bi sëriñ bi neen faw dana texe te dana mucc ci lor kon li mat bàyyi xel mooy lan moo di murit ak lan mooy wéeru ak murit sëriñ bi moo ko jàngale wax al muridu man laa yamliku shay'an wala yamliku shay wax ci yeneen barab yu wuute melokaani murit saadix mi ni mel yooyu yëpp lañuy dajale doon nekk murit kon koo xam ne yàlla rek rek ku ñor adduna ji yëngu bu mu fi yëngu bu ne am ngërëmu yàlla moo ko moo ko ci dugal kooku nag bu ñëwee xentu mboorum sëriñ wéeru wéeru niñ ko xamee lépp loo wéeru fu la nga wéeru jëm da nga jëm kon sëriñ bi ku wéeru ci moom mooy fépp fu mu jëm foofu ngay jëm lépp lu ko ñoroon da ñor lu mu bëggoon nga bëgg lu mu bañoon nga bañ ko lu mu nekkoon nga nekk ci loolu ku ko def dina tax wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na deri rabi àll yi lu mel ne till yeeg bukki yeeg gaynde yooyu ndax dagan na ab jullit mu di ko takk ngir gàllaaj waaw bu fekkee ne yooyu dañoo métti de bu mu soobee la takk ko daganut du mën a xew buñ leen rendi woon it nag daf takk ko ngir mu aar la it ndax yooyu kenn du ko aaroo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na alamaan yi ñu def ci daayira yi nga xam ne ko tarde wala ñëwoo am luñ lay laaj ndax dagan na waaw bu fekkee ñu ko seq ñoo ca maase juboo ci day dagan ay nit ñu seq seq mbir wax na mbir mi kat waxtu sàngam jotee ñëpp nañ teew ku teewut da joxe nàngam buñ ci juboo bind ko tënk ko su boobaa lu la ndax ñoom ñoo ko seq te seen seeni jëflante ñu ca sart loolu te al muslimuna ala shurutihim wallahu taala alam mbokk muy laaj nee na ku doon wérdu maxuul jëm ci jàkk ji bu àggee ñi sant ko mu def taxiyatul masjid te fekk mu yor kurusam di wat nu muy def waaw mu taxaw ci bitti ba àggale yoto yi dooru dugg wala bu duggee ci jàkk ji mu dagg wérdu yi daf liñ ko sant te bu noppee tàmbaliwaat ko mi laaj nee na ñetti fan yi ñuy woor ci weer wu nga xam ne kuy jëfandikoo wérdu maaxul sant nañ la ko ndax di ko toftale wala fukki fan yi ñuy woor te benn luñ ci gën a taamu loolu moom lu mu gën a juboo nit ki rek lépp noo xam daal bu koy defee dana ko mën a saxal noonu baax na ci moom bu koy toftale baax na bu dee def fukki fan yu ne mu woote benn baax na waaye na doon anam goo xam dal moom mën na ko saxal tam kàttanam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na boo dugg ci sëy di listixaar ba xam seen rawaan ànd na lu ci lislaam wax waaw lislaam de santaane na listixaar waaye jàngale na it niñ koy defee ngay julli ñaar rakka yoo xam ne du farata mu ne pee ñaan sa borom ñaan goo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko jàngal saxaaba yi te it nee nañ ni ñu daan jàngale alquran noonu lañu doon jàngale kon yitteewoon yitteeloon na ku ci am mbir mu yitteel waxut sax dañ ci soxna rek waaye mbir mu yitteel mu ne ku ci dugg ne na nga def li taxaara googu loolu sunna jàngale wallahu taala aalam mbokk mi laaj nan la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu woote woon màggal gi sëriñ bi sant yàlla la wootelu sant yàlla nag bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg bokk na ci maqaamaatul yaqin yi nga xam ne jaamu yàlla yi dox bëgg a egg ci seen borom ci la ñuy jaar sant yàlla la wootelu ba mu koy santaane wax ni it fu mu fekkate waaye na ko ci sant yàlla ci def lu baax sant yàlla euh, xol da koy def ay aw làmmiñ di ko def ay cër di ko def sant yooyu yëpp mi la santaane woon kon xéewal gi tàbbi ci yow nga gëm ni ci sa la bàyyi ko yëg loolu loolu sant la wax ci sa làmmiñ sant yàlla ci xéewal gi mu agsi ci yow fu mu jaarit bu la jaar ba agsi ci yow it sant yàlla la waaye jëf lu baax sàkku ngërëmul yàlla ci xéewal gi it sant yàlla sëriñ bi nag loolu la la la woote euh, bëgg ko ci jàppale ci xéewal ku yàlla defal te mu sàbbo ci natt bi mu ko nattu wallahu taala alam mbokk mi laaj ku ñëwoon ci jàkk julli suba fekk imaam taxawal mu kàbbar waaye fat biir julli gi nag mu fàttaliku moom julliwul witar ñu laaj ba xam julli ga baax na waaw julli ga baax na doonte nag dagan na mu dagg julli gi moom soppuñ ko ci moom ay dagan na ci moom bu ko neexee dagg julli gi julli witar door a ñëw julli wat suba bu fekkee ne eh, xaj na ci waxtu yi bu doon imaam nag dañuy sopp moom mu dagg julli gi limaan bu fàttaliku woon ni wut witar ba kabar suba dañuy sopp mu dagg julli ga waxtu yaatoo julli safa witar ba mu waat fajar dooru julli suba euh, waaye bu dee maamoom moom sopp ñu mu di ko dagg waaye nag dagan na bu neexee dagg ko euh, bu àggalee it nag julli ga ba na wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne boutique la yor di jaay alimentation nee na bu at mi dee li yor ci xaalis ak marchandise bu ko xaymaa dana mat misaal waaye nag li mu amee ci bor moo ëpp ñu laaj ndax asaka war na ko asaka ngir mu war ku mel ne moom asakay xaalis dangay am nisaab denc ko at am nisaab nag mooy fekk yu réwu ay bor kooku day xool bor yi mu amee te waxtu fay ko jot ko mu bu si génnee la bu matee nisaab at ci la ko asakay dara war waaye bu fekkoonte ne bu fayee bu génne bor yi la ca des alal ji jeex asaka waru ko bu fekkee la cee des du mat nisaab it asaka waru ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na bayit wi nekk ci mawaaxibun naafi yaa ahla barri yaa ahla baxri ooju li barri baxri saxaa'i nee saxaa'i ji daa am ñu ko bindee qaaf mu jàpp nag ne xaala war doon waaw xaala ak siin su wow géejug te tab géejug tab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne euh, géej la ci tab ci tab wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañoo yàq aw turam ba nam tudd dëgg-dëgg boo ko ko wooyee kenn du ko xam ndax dana dagan nga wax nga wooyee ko tur wa yàq waaw bu fekkee ne du aw xas wala aw ŋàññi day te moom mi ñu koy woowee mu nangu ko dara ne ci waaye xëy na euh, boo boo koy wax ci keneen waaye moom ñi xam ne nii la tudd dëgg-dëgg moom ak lu lu ñu soppi soppi aw turam saa boo ko wooyee dana xam ne moom ngay wax xëy na booy wax ak keneen di tudd kooka wooyee ko tur yi nga xam ne mooy tax mu xam ko bu fekkee ne du aw xas du ŋàññi suba dagal na wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku ñëwoon ci jàkka eh, fajar ndax dangay njëkk a def ñaari rakkaay fajar yéene wàlla ci taxitu masjid wala da nga di xàjjale waaw fajar bu xasee jot boo ñëwee ci jàkka ñaari rakkaay fajar ngay def julli suba ndax waxtu woowu dañ fi tere naafila guddul ñaari rakkaay fajar te taxitul masjid naafila la ci mazhabu Maalik waxtu woowu dañuy tere ku naafila naafila yi fi maye eh, mooy eh, safa witar ku ko ku ko fàtte woon wala nga biddantew doon ko julli guddi far nelaw yeewu waxtu wi jot fajar jot te jullee guñ suba tam xaj fa man nga def safa eh, julli ñaaraakee fajar doo julli suba yeneen naafila yëpp nag dañ koy tere ci waxtu loolu mooy mazhab Imam Malik kon bu dikkee ci jàkka ji ñaaraakee fajar lay def bu julli woon ñaar fajar ci këram door a ñëw si jàkka ji bu julli ñaar rakkaay Eh, tahiyatul masjid day ñëw toog moo tax sax ci mazhab bi dana sopp eh, bu eh, fajar ñaar rakkaay fajar yi nga jullee ko ci jàkka ja laaj doon jox te xëy na bëggu ko wax ne ko asaka la ndax loolu dana dagan waaw loolu lañ gën a taamu sax nag ci mazhab bi am na ci waroom xam-xam mazhab bi ñu wax ne sib nañ di xamal nit ki ne ko asaka la ndax day am lu muy tekki mën na caa yéegi ak xeebu te loolu gënut kon jox ko rek mu xam ne asaka la ñàkk koo xam yow li am solo mooy na la leer ne ki nga koy jox yeyoo na lekk asaka waaw yu mel nii sax bokk na li tax ñu taamu ci mazhab bi asaka nga wut ku la ca nga wut koo xam ne moom koy jox mu lay joxeel wut imaan wala koo wóolu daal koo xam ne dana man xool ñi nga xam ne yore nañ ko fi fi fiñ ko war a joxee mu joxeel la ko yow nga xam ne doo ci feeñ waaye jërul nag di wax nit ki naa ko lii ma la jox asaka la xanaa nit koo xam ne da nga ba xam faqir la wala nekku da ko gi fekk soo mën nga ne ko ah asaka la de bu dee faqir sañ na ko jël bu di faqir ma xam ne moom wut lekk asaka wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na saf sëriñ la te dafoo ndigal la ndax day tax nga génn ci yoon wi wala déet bu fekkee day tax nga génn ci yoon ne dox ba duggaat waaw jëfin ndigal day ci melokaani al muridu la bokk maanaam murid ngir mu doon murid tigi ak muritam dëggu bokk na ca day tënku ci ndigali sëriñam waaw bu sëriñ bi digalee daa war def ndigal li ndax sëriñ bi du ko digal lu dul njariñam du ko digal lu dul lu lislaam digle kon daa war a tënku ci digal loolu su ko defut nag xëtt na ab sart ci sarti al muridu saalix di xam ne génn na ci yoon wi waaye nag ak muridam bu dëggoo yi des na kon dëggu muridam mooy des loolu nag bu ci bëggee dëggu day fas yéenee rëccu tuub la weesu te fas yéene bu mu ko defaat fu ndigal ñëwatee rek mu def ko su boobaa mën naa dem ba melokaanu dëggu yi desuwaat ci moom wallahu taala alam mbokk mi laaj ku jëloon nit di ko bayloo ngir bu noppee ñu seddu Euh, ndax bu tool ba noppee rek la ñuy séddalee dañuy génne asaka ji wala dañuy séddoo ba noppi ku ne dooru génne asaka waaw bu dee nit ki de moo am toolam am aw jiwoom jox nit mu di ko bayal ngir bu ñoree mu faye ko lam liggéey bi mu faye ko ñu séddoo mbay ma ci lañ ci juboo su boobaa tool bi toolu boroom alal jee bu ma tee ni sab ci moom asaka war ci moo xam tool ba man nisaab wala tool bi daa am beneen tool bu mu am moom borom tool bi bu bokkut bi mu jox liggéeykat bi waaye suñ boolee alal ji man nisaab kon asaka day war ci tool bi kon su ñoree dañ koy génneel asaka ba noppi nag dooru séddoo ci nañ jiwoo moog liggéeykat bi loolu nag bokkut ñaari nit ñoo xam ne ku ne daa joxe ñu bokk di bay nga xam ne ñoo bokk alal bi ñooñu moom dañuy bokk suñ bayee bu noppee ku am nisaab asaka war na ko mbokk mi laaj ku faatu bàyyi soxna ak ñaari doom yu jigéen ak yaay ak euh, ay magal ci rak yu góor ki jigéen yu mbokkal ndey ak bàyyi nuñ koy miraas kooku de alal jëm bàyyi dañ koy def ñaar fukki saam ak ñeent yi soxna si moom moom ñett ya muy sumunam yaay ji moom ñeent ya muy sudus fukk ak juróom benn yi ñaari doom yu jigéen ñoo ko moom muy sulusaani benn bi ci des moom la euh, magam yi magam yi ak rakkam yi bokk ñu bokkal ndey ak ñoo koy bokk séddoo ko góor ñaar jigéen benn wallahu taala alam mbokk mi laaj ku takk soxna waaye cen gam ko cenal nag du alal ju lew lu atteg say boobu ci mësa bu mali de ku cenal jigéen alal ju lew bu dee njëkk wéet dañuy tas say ba bu dee ginnaaw wéet la nag jaxasoo soxna si sëy ba day wéy waaye nag ñu wut kenn kenn ay moromam jox ko kenn gu bon googee fi ne woon alal ju xaraam la wala loo xam ne jullit sañu ko moom lañ ko joxoon dañ koy dindi te wut kenn ku lew jox ko waaye bu dee njëkk wéet nag da ci teg say bi wallahu taala